aywa da nga bëgg information yu wér te wóor information yu ñu vérifié yu leer nañ defal www euh, point allo sénégal point com hashtag Macky Sall Ousmane Sonko Benno Bokk Yaakaar gàmmu Tiwaawan jër ngeen jëf mbokk yi tegtal bu leer xam-xam bu wóor boo ko bëggee ñëwal ma déy la amu si moroom ndax alxuraan la def wéeruwaay Mara Al Amine jëmm ji damay wax rekk toujours ni ku sa aajo nar a faju boo ko jàkk ni alhamdulillah alhamdulillah bari na ñu muy jëflanteel si réew mi ba si bitim réew te ñoom ñëpp ñi ngi gis ay résultats sëriñ bi tey dinañ àddu jëm si liggéeyam waaye dinañ wax si réew mi ndax yàgg na di si wax. njiitu réew mi sekk na jotaay bu yaatu ak waa France 24 ak RFI fële ca états jotaay boobu boobule waxteen wax wax nañ sa jëmale ci ki nga xamante ni nii moo waral coow li ci biir ci biir réew mi. di Amadou Ba waaye it ci biir jotaay boobu waxtaan nañ ci ci li nga xamante ne nii mooy njiital Pastef di Ousmane Sonko ak partem bi nga xamante ne nii tas nañ ko taser Boun Abdallah jone nee na du wéeru benn yoon ci ginnaaw ki nga xamante ne nii mooy Amadou Ba doy ko te moom day déposé candidature am bokk ci jongante bi nga xamante nii mooy am 2024 Ousmane Sonko ba léegi kenn déggu ko bët kenn tegu ko bët ñaar fukki fan ak juróom a ngi nii dégguñu ay mbiram waxuñu lu ci jëm ak sëriñ bi dinañ ci wax waaye it dinañ wax ci coow li nga xamante ne nii moo nekk ci kaw ñi nga xamante ne nii ñoo bokk ci parti Benno Bokk Yaakaar di euh, Macky Sall di APR euh, Françoise Hélène Gaye ak kuro Macky fële si États-Unis ñu ngi leen di bundu xataal bundu xataal bu metti ndax fu ñu jaar fu ne rek ñu ngi leen di yuuxoo ba ci ki nga xamante ne nii mooy Youssou fële ca France patriotes yi bàyyiwuñu leen benn yoon waaye laataa loolu dañuy bàyyi Mara Al Amin mu nuyu mbokk internet Allô Sénégal yi ñuy seetaan Mara ñu ngi lay nuyu. ok salaamaaleykum wa rahmatullah. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wasalaatu wasalaamu ala rasulillah la xawla wala quwwata illa billahi wahidil ahad ñu ngi nuyu mboolem sénégalais yëpp di ci jiital ñi yàlla jiital ci sunu kanam di leen ñaanal baax ñu yàgg fi lool te incha allah di nuyu mbooleem sénégalais yëpp di bég lool ci suñu daje incha allah képp koo xam ne danga am aajo ak lu mu yàgg-yàgg na nga teewlu bu émission bi jeexee incha allah solution dana ci am bu soobee yàlla jërëjëf. macha allah Mara dañuy door suñu jël njëlbéenu waxtaan rek dugg ci li nga xamante ne nii maa ngi koy wax saa su ne mooy buntu buntu lépp muy seet waaye nag daa am lu ñu ko taqaleel muy lex si xaar ñoom ñaar dañoo bokk dañoo bokk kër rek waaye bokkuñu nekk sa mbir la sénégalais yi ñoo ko wax du samay kàddu seet li si xaar loo xam ne ñeme naa wala mën naa yëkkati sama loxo hmm? wax ne bokk naa ci ñu ko dàq deux personnes yi ko dàq ci réew mi bokk naa ci loolu yàlla def seet loo xam ne hmm. mooy buntum ñaan ndax hmm. alxuraan dafa ne waatul bu yoota mi min abwaabiha lépp looy def rek nanga jaar ca jaarukaay ba seet nag di loo xam ne boo ko defalee ki nga xam ne dafa am aajo dana tax nga xam nan ngay def ba dimbali ko bu fekkee ne dimbali ko yitteel na la waaye képp ku la wax itam ne la mën naa faj sa aajo te seetalu la waxul dëgg seetay lépp doomu aadama boo seetee ba xam kii kat lii moo ko téye lii mooy gàllankoor bi seet gi dana la wax ne la itam lii ngay def boo ko defee incha allahu taala mu dañ képp koo xam ne jox nga ma sa tur ak sa turu ndey mën naa laa wax ba wax la bis ba ngay faatu sa sama sama sama seet day mën nay wax nit ki ba wax ko bis ba muy faatu billaahi wal quraanil azim billaahi loo xam ne parfois ma dégg ay sëriñ sax di ko soofantal naan yëfi gone la waaye waxuñ benn dëkk koo gis muy soofantal seet amut xam-xam kooku moom bu fekkee naa boroom xam-xam ngay wër na ko fi bàyyi te xam ne amut xam-xam seet di lu munta ñàkk ci dundug doomu aadama résultat yi ma ciy def nag hmm? ñu ko xam bari na loolu man danaa seetal nit ba mu ne ma dañ ma informé ci moom te fekk na du loolu xam-xam la rek. xam-xam la billaahi wal xuraani asim xam-xam la. dégg ci bitim réew da leen di seetal. man ñëpp laay seetal distance ak fépp laay seete ñépp laay seetal te ku ma seetal faj saajo kenn la kenn laa mënta faj aajoom mooy ki ma seetalut. ki nga xam ne seetaluma ko waaw kooku moom mënu maa faj aajoom waaye ki nga xam ne seetal naa ko. ak lu jàngoro ji yàgg-yàgg uh-huh. su ma ko seetee faj ko incha allahu taala laa ilaha illallah sëñ bi seet wax nañ ci lex si xaar duma ci dugg duma ci sori ndax ni nga joxe màkkaamay seet noonu nga ko joxe tamit li nga xamante ne nii mooy lex si xaar li si itam dañu wax seet di wax li si xaar mm-hmm. waaye boo fekkee ne danga ñoo woo nga yittewoo ko dañ lay laaj loo bëgg ñu defal la ci ñaar yooyu mm-hmm. nit ki mooy choisir waaye lu ñu ci def rek da nga sa gémmiñ ndax xam-xam la te xam-xam bokk na ci li nga xam ne tey jii nii réew mii ñu nekk buñ doon lim boroom xam-xam yi ah. man duñ ma tëb ah. te ñu bëree bëri xam nañ ci dara bu fekkee ne boroom xam yi dong moo leen yitteel bañ ko doon lim man mii bu ma doonul première may deuxième ah. ndax ba dama jànge ba jàngi jotee bi ñëw jotee ma doog ñëw fii doog a wax ak yéen te ñi te ñu ñu bëree bëri ñoo xam ne dañuy topp xam nañ ci dara ñun xam-xam moo ñu laase ba tax ñëpp xam ñu te itam amuñ fenn sens interdit ci réew mi fu ñu neex dugg fu ñu neex toog fu ñu neex dem loolu nag waaw loolu li ko waral mooy mooy mooy xam bi nga xam ne nekk na ci ñun te leer naa ñu ciy def lu kenn mënul mbaa kenn xamul jërëjëf sëñ bi ci question amin wax ju bari yaa ngi koy fay ci réew mi fu wax jubee rek fay nga ko ñenn ñi naan noob la du noob noob sa mbir la waaye tamit fay wax yaa ngi koy def di ci gis ay résultat sëñ bi boo ñuy dikkal ci noob ak lañ koy tëkkale. waaw noob di loo xam ne man noob nit mu rëcc ay caaxaan laa ko jàppe waaw noob laa ko jàppe képp koo xam ne yitteel nga ma noob la dong yitteel ma. am na heure bu may faral di jug. di di di di di di ko liggéey ci noob. juróom-ñaari fan. am na sax ñuy wax naan juróom-ñaari fan. dañ ciy def noob waaye loolu dafa bari man 24 heures. 24 heures heure ba heure ba dellu si oh. ci lay noobal doomu aadama bu làmbee gis résultat ba noob di loo xam ne noob ak kum mën a doon xam nga dafa am xeet doomu aadama yoo xam ne nag yomb ñoo jàpp ci noob mënul leen a noob ba ba jàpp leen loolu dafa yomb mooy ñi nga xam ne dañuy faral di taq hmm. waaye man képp koo xam ne jox nañ ma sa tur ak sa turu ndey fii hmm? mënoo ma rëcc ci noob ah. nit ku nit ku weex ak ñuul la ci yam loolu kay résultat yi moom mi ngi fu ne nob moom damaa bokk ci ñi ci teg tànk du jox luy dañ non sëñ bi ubbeeku ak kayit tey boo demee ba ni nit ku weex nit ku ñuul la ci yam ubbeeku ak kayit tamit nit ku weex ak nit ku ñuul la ci yam ci yow yaa ngi koy def di ci gis ay résultats sénégalais yi d'accord nañ ni al amin ku ubbeeku ci réew mi ba dem Europe rek bokk na ci la ubbi comme ni mu ko waxee léegi ci ñaan yi dàq ci réew mi seet ci la bokk. waaw dëgg la ubbeeku di loo xam ne lu munta ñàkk la. ci dundug ci dundug doomu aadama. Mm-hmm. man danaay jëflanteeg nit ci ubbeeku. ba seen waa kër tàmbali di ko sib di ko sonal. Mm-hmm. ci ngir mu di leen ngir mu wax leen alal ji mu yor fu bàyyi ko. Ah. fekk ne dafa fexe ba dugg fa mu war a dugg. am na benn. xamb bu may liggéey. waaw boo xam ne ah. lawbe bi nga xam ne moo koy yàtt hmm. du sol yére ah, waaw àll ak lay def ah. moom loolu moom mooy li am eh. waaye bis biñ ko bis buñ ko composé liñ koy composé ba jox la. billaahi boo nekkoon ci famille gën caa ndóol soo ma gisee ma taqali la ndóol incha allahu taala di di di leer di di di lu leer loo xam ne bu fekkee ne. am-am doo moo la yitteel. waaw incha allahu taala boo ma déggee bu ñu xoolee ba gis ne yow mii am jot na ci war nga am incha allah dinaa fexe nga am. waaw incha allahu taala waaye itam bu ko defee doomu aadama itam ñu bàyyi ci xel nit ki fii sa wërsëg waroo gëj coo jot munoo coo jot gis nga wërsëg ak dee ñooyam. foo man di nekk bu jotee foo mën di nekk mu fekk la fa. kon nañuy fexe bay sabablu di def li ñuy war a def li ci des ñu bàyyi ci loxo yi suñu borom subhanahu wa taala buñ ko dee def rek incha allah mbooleem suñuy mbir dana yomb bu soobee yàlla incha allah jërëjëf. incha allah al amin dëkk bi dafa jaxasoo dëkk bi Sénégal léegi kenn xàmmeetu ko yàqante gi bari na ñii pexeel bari na muslaay dafay baax ci doomu aadama ji du dundam pour mu mën a am lu koy aar yaa ngi koy def. sénégalais yëpp ñu ngi daw di ñëw ci yow parce que nag bi ma defee parcours bi yëpp gis naa ni Moussoulaye moom kenn dàqalu ko ci biir réew. waaw damay wax ne ki nga xam ne bëgg naa mucc. dëgg-dëgg. ba suñ borom dimbale ko yu ñàkk fayda yi di xew di ci faatu. na fexe gisee ak al amin. am na yu ma ciy joxe yoo xam ne. dama koy jox ay nit ñu xam ne nekkuñ ci réew mi ci bitti lañ ne. Mm-hmm. ñoo xam ne ci risque rek lañuy dox. waaye mosoo dégg mosuma man de mosuma dégg ñu wax ma ne leen ñoom kat def nañ leen nangam ngir danoo def dara ah. te man mii maa leen ngemb maa leen ngemb te du ma ngemb nit mukk muy muy daanu wala muy am gàcc loolu moom ruus naa ko jomm naa ko am na loo xam ne ci deret ji la hmm. deret ji nga xam ne ci laa bokk ruus duñ jëflanteeg nit mukk muy am gàcc incha allahu taala jërëjëf dëgg leneen ñu ngi koy gis sénégalais yaa ngi koy wax waaye ñun dañ cee bëggoon ay firnde yu leer naññe muy jaaro or bi foofu nag dama fay taxaw nag ndax jaaro or bi ah sëñ bi or nag lu raarati jafe la ñëpp koy daw di ko wuti te xam naa ne jaaro bi ñëpp koy daw di ko wuti jaaro or bi sëñ bi ak bay jaaro bi di jaaro boo xam ne ba ma koy doog a lancé mhm. nit ñi dañoo jàppoon ne ay caaxaan la waaw waaye fi ne nii nag. ñu ko bëgg te mënuñ koo am kenn xamul nuñ toll. ndax la ma ciy wax mooy jaaro la boo xam ne. Hmm. ay pexe taxul nga jot ci. Ah. waaw ñàkk pexe itam teewul nga jot ndimbalul yàlla dëgg mooy tax doomaadama mën a jot ci jaaro bi nga xam ne maa ngi koy joxe te di ko liggéeyee or. maa ngi waat ci yàlla. maa ngi waat ci yàlla ne képp koo xam ne. Hmm. suñ borom defal na leen ndimbal ba nga jot ci jaaro bi hmm. boo amoon day gën a yokk. boo amutoon da am. force nag ah, ah. waaw ndax danga yor loo xam ne doomu aadama munu koo yor ba pare di ñàkk am na loo xam ne munuta ànd ak ñàkk te jaaro bii ci la njariñ yi bari na dafa am cent 313 njariñ waaye yiñ ci mën a leeral mooy doomu aadama bi yi nga xam ne yittewoo woonoo ko jamono biñ toll nii tembe tembe lépp loo xam daf ko yittewoo mi ngi ci jaaro bi doo ko yor mukk nekk fenn kenn du la tudd foo nekk kay su tur day jolli ca kaw ñëpp di la dégg. loo bëgg suñ borom dana ko jàppandal incha allahu taala mboolem loo xam ne doomu aadama daf ko yittewoo di ko lijjanti. boo jotee ci jaaro bii incha allahu taala loo dugg baat ak tontu lay doon. Hmm? jërëjëf. tët tët tët tët kon sénégalais yi jaaru baa ngoog waaye leneen lu ñuy fësal teg ci suñuy baaraam mooy wàllum néew kàttan sëñ bi néew kàttan moom ku doon jooy tey noppi nga say rongoñ fer na am na lu la koy fompal te mi ngi nii mooy jëmm ji toog ak ñun di al amin sëñ bi néew kattan bari na ñu ko doon jooytu waaye léegi kenn jooytootu ko ndax sa jëmm ji. waaw néew kattan di loo xam ne moom résultat yi ñu ciy def daanaka àddina sépp xam nañ ko. nit dana ñëw fii. Hmm. ñuy waxtaan mu wax ma boppam. xam ne munu dara kooku moom munu dara ci soxna yi waaye daa am fas am na fas gu ma doon joxe waaye fas ga day def saa yu ñëwee du taxaw ndax nit ñi nit ñi ñoo koy waxtaane nit yi ñooy waxtaane fas gi ma boole fas ga aku butéel di ko joxe butéel bi nag hmm. kàttan da cee gën a fes waaye mbooleem jàngoro yi nga xam ne day nekk ci biir doomu aadama di ko yàqal hmm. di la yóbbee ay tànk yu wala biir wuy daw yaram wuy xasan nag yooyu yëpp dañ koo boole liggéey ko ci bitil bi néew kàttan nag moo ci gën a fés ndax ah. moo tax ñu def ko waaye dañ cee boole yëpp liggéey ko kenn du ko am te sa kër du neex xam nga kër xam nga kër du lekk ak naan dong moo koy neexa wala dépasse bu doy déedéet waaw loolu dong hmm. neexalut kër ndigg ndigg lu baax dafa bokk ci kër gu war a neex bu fe bu bu fekkee ne fexe nga ba jot ci butéel bii may joxe ci wàllum néew kàttan même bu xaalis amul ca kër gi sax kër gi day neex ndax kër moom bu bu bu la yàlla dimbalee nga fexe ba soxna yee bëgg rek kër gi day neex te incha allah taala butéel bii kenn du ko am te sa waa kër duñ bëgg. sëñ bi man damay tàmm naan la sëñ bi parce que nag da nga màqaama gi rëy al amin ëmb buy tuuru bokk na tamit ci li nga xamante ne nii jigéen ñu bari ñu ngi koy jooy. guddi yuñ tool noonu guddi yuñ toll nii tey bu ñu génnee ci néew kàttan bi nga xamante ne nii tey mën na neexal kër gi te dépense sax du am waaye it jigéen ëmb ba ëmb ba sotti yàlla def jàmm tamit luy neexal kër la sëñ bi ëmb buy tuuru looñ ci wax. dëgg la ëmb buy tuuru nag rab daf koy faral di def. rab dafay dafay faral di jàpp soxna yi lool loolu nag mi ngi aju ci ki nga xam ne suñ borom dafa def mu tolli diggante te xaw a sàggan. maanaam doomu aadama moom bu sàgganee lu ne ko mën a dal. waaye rab daf koy def dangay ngay tolloob diggante waaye da ngay dem ba régal sax doo ko mën a gisati du du du du dara boo demee ba am yaakaar ci sa ëmb yàlla def mu nax saay. loolu rab daf koy faral di def ak yeneen ak yeneen. waaye am na butéel bu ma ciy joxe. boo xam ne dooma soxna bi. Mm-hmm. du ko naan mukk mm-hmm. te du ko bu fekkente ne dafa amoon ëmb bu yàq wala ah. mus sa jàpp ëmb wala fu mu ko yaakaaree rek yaakaar jatas incha allahu taala bu la yàlla dimbalee ba nga jot ci butéel bi nga xam ne danaa ko ciy joxe foofu la sa yaakaar di jaaree bàyyi tas ba faw incha allah hmm. te boo boo ëmbee dana jàpp ëmb première bi boo xasee jàpp rek jeex na beneen bu ñëw dina toog ndax dañuy fexe ba xam li koy gàllankoor lan la ci xeeti gàllankoor yi def koy traitement ba mu dañ incha allahu taala bu ngeen jaxasoo rek incha allah bal day daal takk. waaye am na leen loo xamante ni def defu rab la muy soxna su bëgg boroom kër te mu tëkko soxna su bëgg boroom kër te mu sëñ bi loolu naka la ko rab di ko gàllankoore. waaw euh, am na ñoo xam ne. ci soxna yi seeni àndandoo. day faral di fiir. te bu la yàlla booleek àndandoowu fiir. boo nekkee ci dara. daf lay fiire fiire googu nag mooy dem ba di la yàqal koo waxtaanal ba ngeen am yaakaar uh-huh. doo ko gisati mbaa doo ko mm. déggati looloo ci gën a ndaw doo ko déggati mbaa doo gis er ci mboolem li rab di def loolu nag saggante dana ko waral taq itam dana ko waral ndax rab hmm? day faral di bëgg lu salte bu fekkee ne dangaa topp sa bakkan ci lu ne nga dugg ci uh-huh. rab dana la jàpp te bu fekkente ne danga bëgg borom kër dina xaw a jafe lool. bala nga koy am il faut nga set. ndax il faut nga set boo setee nag. doog a mën a jubli ci sa bopp. waaye doomu aadama bi li fekk mi ngi taq. lu mu bëgg da koy jafe. lu mu bëgg da koy jafe. day tëju ci côté yëpp. sobe moo gën a bon. sobe moo gën a bon ci doomu aadama ak tooñ ma mën a tooñ nii. Ah. boo mënee tooñ nii. lu waaye wax nga dugg ci di saaga nit ñi di fontoo nit ñi lu ne nga dugg ci nanga xam ni tëju mooy gën a woyaf ci li daal ndax réew mii dafa bari nit ñoo xam ne wëreesu leen a tooñ daa gis benn waaye bu nekkoon ci benn koñ lu ne mu dugg ci day xëy rek faatu dafa laal laalaak nañu maytu di tooñ wala di dugg ci yëfi jàmbur dugg ci lu sa yoon newul di ca wax doomu aadama loo ko wër wax nañ ko ba bi ci des mooy nañ bàyyi sëriñ si ñuy gis ci internet bi. boo gisee sëriñ naan ko demee liggéey wax dëgg yàlla kii mën a nangul fecckat bi. waaw mën a nangul musicien bi. waaw a gis nit xam ne kii ab sàcc la. war ngaa mën a nangul ki jàng alxuraan. ki jàng alxuraan. alxuraan moo gën. ndax yonent yàlla Muhammad moo gën ci mbindeef itam moom la yàlla yëkkati jël alxuraan teg ci loxoom. kon loolu moo gën. ki nangul caaxaankat bi war naa mën a nangul sëriñ bi. Sénégal nag dañoo soofantal xam-xam bëri caaxaan daanaka caaxaan lañ gën a kii sax ci dëgg ci dëgg gi waaw. te loolu ay caaxaan kese ginnaaw dong la ñuy jëmee nag. ginnaaw dong fi li fekk ñi ngi soofantal xam-xam duñ avancé fenn loolu moom mooy li am moom. sëñ bi al amin même bu ñuy soofantal xam-xam sa xam-xam kenn dootu ko naatable demande générale bi ci des nag mooy wàllum këyit sëñ bi ñu bari ñu ngi koy waxtaanee. waaye man man maa toog toogaay jottali la kàddu yi wàllum këyit sëñ bi. waaw këyit di loo xam ne bul yàlla dimbalee ba nga jot ma. jàmbat ma ko. Hmm? ba ma coytu seet. gis ne war nga koo mën a ci jëflantee. Hmm? juróom-ñaari fan. ci boo jotee li ma la yónnee boo ko jotee nga jëfandikoo juróom-ñaari fan. Hmm. ba mat. juróom-ñaari fan yi mat sëkk. juróom-ñetteelu fan ba ci ngay dem nga def déposement. incha allahu taala duñ la neenal. Hmm? rarement ngay dégg ku ne la jëflante nag al amin ci kayit ñu dàq ma. lii mooy li am. li ma ciy def. ñu bëri xam nañ ko. di loo xam ne secret yi ñu koy liggéey yu wuute la. waaye daal dale bi ci gën a gàtt moom mooy juróom-ñaari fan. boo jotee ci lii ma la jox nga jëfandikoo juróom-ñaari fan ak réew ma nga nekk luñ naqaree naqaree maye kayit boo ñaanee dañ la may ndax man duma nekk ci ginnaaw kenn muy bëgg dara te du ko am munta nekk jërëjëf juróom-ñaari fan lay maye sëriñ su bare ngi maye ay 40 jours jëm kaw fan la ñuy yam sëñ bi ndax bu ñu xuusandee rek xam-xam dëgg dina feeñ te duñ ko àttan ñun dañuy jàll lekk ci leneen muy actualité réew mi sëñ bi tey njiitu réew mi gis nañ ko fële nga xamante ne nii mooy ci États-Unis moom ak euh, ñi nga xamante ni ñooy waa France 24 ak waa RFI ñu doon sekk benn jotaay bu yaatu jëmale ci li nga xamante ni mooy tolluwaay réew mi ci jotaay boobule waxtaan nañ ci jëm ci li nga xamante ne nii mooy Amadou Ba sëñ bi Amadou Ba moom la euh, Macky Sall jiital ca kàddu yi mu yëkkati ca jotaay ba nag ne xam le ni ne Amadou Ba mooy choix bi gën ndaxte opposant bi fi nekk Amadou Ba mun leen téye te Amadou Ba gëm na ko te xam na ni mën na am ndam ci 2024. Amadou Ba gënut. ah waxoon naa fi ne. moom lañuy ñuy tànn. Ah. waaye gënut. Ah. wax dëgg ah. yàlla. Amadou Ba gënut. te jëruñ ñuy ñuy yàq xaalisu sénégalais yi. di ko financé ci seeni campagne Amadou Ba moom. xaw ma man réew xanaa élection yële di ñëwaat. waaye fii. balam tàkk gut pour mu war a doon président. mais Macky Sall nee na ngemb na Amadou Ba sëñ bi nga ni Amadou Ba gënul. Macky Sall ngemb ko taxul mu gën. Ah. Macky Sall xamul lu muy def xamul fu muy teg tànkam. ndax fi ne nii moo gën a fi ne fi ne nii moo gën a jaaxle. péréction bi nekk ci boppam attanu ko. moom daanaka lim def sax réer ko gën a kii ndax ndeysaan da dem ba yërëm ko sax xamut sax lu mu war a def. loolu nag li ko yóbbee mooy jafe-jafe yi mu teg askan wi. Ah. la askan wi wëlbati ko waat di ko teg. boo en tant que président de la république. waaw mm, Macky Sall fi ne amul réew mu mën a wàcce ba am fa jàmm. ndax ñun ñii mu ne fii am na loo xam ne moom fii laa am Sénégal waaye mm. ci bitti. boo fa génnee am na loo xam ne boo fa bëggee def. Mm. ñaa ngi ko fekk ci boppam ñoo lay njëkk teg ci sab ànd. ci noonu sax laay duggee ci li nga xamante ne nii mooy sa wax ji léegi dama koy wuyu rek. Coura Macky ak François Hélène Gaye bokkoon nañ ci ñi gën a taxawu président de la République du Sénégal tey ña nga fële ci États-Unis waaye nag comme ni nga wax rek rëccuñu ci ndaxte ñu ngi leen di yuuxoo di leen atte ñàkkal fu ñuy tourné ñu leen tuur ay ndox tey jëf junni mel noonu gisoo ni tey Macky bi fi jóge woon tey jàmm du mën a amaat ci biir réew mi Sénégal. maanaam loolu li ko waral mooy taxawaay bu ñaaw bi ñu am fii ci biir réew mi. mooy waral bu ñu génnee yàlla di leen nattu ñañ fay fekk di am ci ñoom taxawaay bu ñaaw. addina moom boo fi nekkee. da war a fexe ba lépp looy dugg mu rafet. lépp loo nekk. ak alal jang cay am lu mu bëri bëri bu mu tax a bew ànd ak ki nga xam ne moo jiite moo nekk ci bopp réew mi. ba tax nga ne lu ma neex laa fi wax lu ma neex laa fi def fii la yem waaye du ah. génn ci bitti ci bitti boo fa demee boo ko fa defee ñu toj sa lu bon moom day leer am na loo xam ne fii la yem waaye génnut. bu ko defee ñu xam ne àddina bànneex du wëy mënut du continuer nañu fexe ba. waat ak sénégalais ni ñuy def ba juboowaat ak sénégalais nag mm. ñoo ko xam nañ fexe ba fépp fu ñu jaaroon yàq ñu jaar fa defar ndax sénégalais soo mën a jubóol la nga ko yàqal boo ko deferee rek mën ngeen am jàmm mm. kon nañ fexe ba bàyyi wax ju ñaaw ci mm. bàyyi saaga yi bàyyi di fontoo sénégalais yi te fépp foo xam ne jaaroon nañ fa di saaga doomi jàmbur yi mm. nañ fa jaar retiré saaga woow buñ ko defee mën nañoo am jàmm ci réew mi te buñ génnee mën nañoo am jàmm waaye li fekk ñi ngi topp ci président Sall mii lu leen neex wax lu leen neex def fuñ dem ñan fa fekk lu leen neex lañ leen di def wasalaam amul jàmm sëñ bi muy Ousmane Sonko ñaar fukki fan ak juróom a ngi nii kenn xamul ba xam mi ngi ci dund mi ngi dund normal mi ngi lekkam déet tàndarama gi ñu ko joxoon est-ce que dakkal na li nga xamante ni moo doon grève de la faim ba léegi amuñ ci benn nouvelle. waaye nouvelle bi ñu am te mu bees tàkk mooy tey Macky Sall bi mu demee ci jotaay bi ñu doon waxtaanee sànq tudd na fi it wax waxi Ousmane Sonko nee na parteem ñu tax mu tas ko dafa gis ni kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ak Pastef ci boppam daf koo tas ndax dafa jàpp ni rek. bu ko bàyyee mu wëy dina yàq réew mi dina jaxase dina jaxase kàttu li nga xamante ne nii mooy Sénégal te loolu ci. waaye loolu du du du la am. Hmm? du wax ju am ndax Sonko koo gis mu koy xeex. dafa xamul rek. waaye billaahi barki boroom Touba li ma xam ci moom. Ah. sama moroom xam ko ci moom. bu yàlla defaloon Macky Sall ndimbal. Ah. wala keneen ak keneen bañ xam ko ci moom. Hmm. danañ bàyyi liñ koy tegal liñ koy wax. sëñ bi loo xam ci Sonko. Sonko nag. li ma xam ci moom mooy gis naa ne. Mhm. ku suñ borom dimbali la. te itam incha allahu taala. Mhm. surprise dana am ci moom. surprise ci moom waaw moom sonkoo nit ñi nga xam ne nag dañoo taxaw teem pour Sonko génn. lu mën a nekk la. waaye dañ cee dajee gut kañ war a dajeel. sonkoo fi ne. ci gàllaaj lañ ko jàppee. moo tax biñ ko jàpp. boroom xam-xam dëgg nag moo la mën a wax lii ci tegtal la ñu jaar ba teg ko te kenn yënguwul. ci tegtal yooyu nag. laa mën a jaaraat man mii. Ah. waaw man mii. Ah. ci laa mën a jaaraat ba sonkoo génn. te surprise dana ci oh. ay sarax. yoo xam ne waris na ko koo defal. Mm-hmm. te incha allahu taala bu nu yàlla dimbalee. bañ gis nit ñu taxaw pour loolu am. sarax yooyu war a génn génn. Mm-hmm. billaahi wal kitaabi sarax yi buy génn Sonko di génn. Ah. waaw buy sarax yi di génn sonko di génn. amul ma dem sonko di génn sarax lu mu mënut amut. gannaaw day fànq dee. waxuma la ak nit kuñ denc ci kaso te teg ko ci jaay doole ak topp sa bakkan bu sarax yi génnee sonko génn. sànq am na loo mu wax ci ñii noonu ak sonko loo si waxati. mooy nañu bàyyi xel seen bopp rek ndax fi ne nii moom lawoon woon ni na. lawoon woon ko toñ na. galaaj toñ na. ku ci defaree jiwaatut. ku ci jugut ci sa bopp. li dal Sonko li daloon Sonko. waaw dana la dal. te bu la dalee li ci gën a woyof mooy faatu. faatu ma ne. ñi nga xam ne dañuy noonoo Sonko. nañ delluwaat jug ci seen bopp. gala moom lañ defoon moom toj na. Hmm? te gannaaw toj na ci ñoom lay dellusi hmm. te képp koo xam ne. dellusi si na ci yow. la cay gën a woyof mooy mooy faatu. faatu boo fi continuer nekk itam nekk doom njariñ déedéet. Fatou Fatou ci gën a woyof moom. Hmm. noonu noonu Sonko moom. jamono jii. moom lañ defoon toj na. Hmm. te képp koo xam ne noonaa nga ko ba noonaa nga fës. affaire bi dina dellu ci sa kaw te bu dellusee la ci gën a woyof mooy Fatou. loolu moom man mii maa ko wax te lu lu wóor laa wax man waxee ma sama bakkan. tooguma di xalaat di wax. ci xam-xam lay wax. te ku ma te am na ñoo xam ne buñ ma déggee danañ xam ne ci xam-xam lay wax. bokkuma ñi toog ci yëfi gone man yëfi mag ci laa toog. barke borom Touba jërëjëf. keneen ñu ngi koy gis fële ca France mu doonoon ku am baat mu doonoon kuñ doon gestu kuñ doon xool ci biir réew mi muy Youssou nduur sëñ bi mu samp fi te TFM samp fi ay liggéey yu baree bari waaye tey dafa mel nii sénégalais yi dañ ko dañ koo dummóoyu ci loolu yooyu yëpp muy def def yoo xamante ne daan na ko fi def ñu ngi koy yuuxoo fële ca Europe ñu ngi naan sax waa Pastef ñoo koy def loo ñuy wax ci Youssou nduur Youssou mag Macky Sall la àndoon. mu jékki-jékki ba ba googu mu ba teewul la daloon li dal Macky Sall dal ko ñoom dañoo toj la dañoo yàqule te te fileeki fan ñëpp danañ xam ni ñii dañoo toj la maanaam parti bi warante gu metti dana ci am billaahi te te te te ñi nga xam ni gënul nañu am ci ñoom yaakaar ñooy wor wor wor wor ci kaw wor danañ dem ba mel ne garab gu doon meññ ba mu yàgg mu tàmbalee ruus danañ dem ba ñëpp ba waaw lii moom maa la ko wax fii xaj bi matt Macky Sall moo matt moo matt Youssou Ndour ñoom ñëpp a toj la fu ñu mën a dem ci àddina itam nii lañ fay nekk ndax dañoo yàqule lawoon wonni na lawoon wonni na lawoon wonni na foofu la ñuy jaaree ñun ñun ñu ñu wonni li nga xamante ne nii mooy suñu waxtaan ak yow sëñ bi xam-xam feeñ na waaye it kàddu yu wér wóor comme nañ ko daan defee saa su ne rek buñ daan dajee génn na kàdd gu mujj gi tey al amin lay doon alhamdulilah xanaa di ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mi jàmm jooju nag li ciy jiitu mooy fen yi ñu bañ ko ñu bañ a jàppale ñu koy def te dëgg gi nga xam ne moom la yàlla bëgg ñu indi ko fu dëgg amul mm-hmm. jàmm munu fa am te fii ci senegal dëgg ñàkk na fi doole lool fen itam am fi doole lool buñ bu fekkee ne bëgg nañ ñoom liggéey bi ñuy liggéey mu am tuuti barke fen yi ñuy jàppale ñii fen ñu di leen jàppale mm-hmm. nañ ci génn te fexe wëlbatiku ci dëgg ndax yàgg-yàgg dëgg mooy mujj te dëgg Macky sàll moomu ko ministère de l'intérieur bi moomu ko kenn moomu ko yàlla moo ko moom alxaqu lillah boo ko waxee yàlla nga ko waxal boo ko ñàkkee wax sa bopp nga ko def dañu ciy bindal bàkkaar boo liggéey boo faatoo ñu làpp la nañu waxante dëgg te bàyyi fenkat yi ñuy jàppale ñuy fontoo nit ñi di saaga nit ñi di manquer de nit ñi loolu moom lu ñor la nañ ko ba mbaa buñ ko bawut man moom ku ma ma ñëw ci yow te amul kenn koo xam ne te amul kenn koo xam ne xaj naa ci sa kaw ñenn ci ñi may jëflanteel ñu di ma fontoo xam nañ ci dara comme nga ñëw ma wax la dara. yàlla def nga gis ko. la ma la nga waxoon defoo ko. Mm-hmm. bu ma jógee ci yow da nga xam nekk ci. bu nga jógee yow di nga xam sa yoon nekk ci kàddu yu mujj Mara Al Amine moom lañ dalaloon fii tey muy borom xam-xam di borom baatin di ko xamante ni nii sénégalais ñi ngi koy may nopp ci wàll bu nekk jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal.